salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki internet yi mbokki téléspectateurs yi ñoo ngi leen di bu baax a baax a baax euh, di ziarewaat euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy suivre seen seen religion bii di Al Moukhtar TV. Mm-hmm. di leen wax euh, di amaat contentement bu baax àndaat a yéen seen émission ziar tey ñu ñëwaat fii nii ci kàcc gi ñuy wax Touba Thiaroye seet fi benn ndaanaan benn cantkat bu màgg bu tedd fii si Thiaroye yi di wéyoo turu Moussa Gueye mais ñu gën kaa xamee ci déggoo général. kon euh, déggoo ñoo ngi lay ziar. delloo bu baax a baax maa ngi ñu ziaraat bu baax a baax. ñu ngi waat gaa yëpp. Mhm. santaat Serigne Touba bu wér wér ak Cheikhul mhm. waaw. waaw déggoo tey euh, nga nekk suñu deuxième invité fii ci émission ziar mhm. euh, bu ñu la doon laaj tey kan mooy déggoo lan nga ñuy wax. waaw déggoo ba ab nango su su xeebu la. ak Cheikhul Khadim waaw doon Baye Fall nag waaw juddoo si xaadar waaw doon nag nangu doon doon Baye mhm. di élément Alaaji Xaadim Mbàkke mhm. waaw mu mu boole nag Serigne Saliou borom Noor Kéemaan mhm. waaw ñu doon ay manga bak Seex Xaadim waaw waaw déggoon nga doon Baye Fall doon cantkat fii si caaro yi ak ci yeneen i gox déggoon maanaam bëggoon na nga xam maanaam lan moo la dugaloo ci sigaar ndax bëggoon nañ xam ba xam da nga judd euh, fekk say famille doon ay jàngkat nga nga ànd ak ñoom nekk ci wala da nga judd gis comme sa gars yi yeneen gars yi ñuy cantee mhm. nga am ci émission euh, dugg ci bëggoon nañ xam maanaam daal lan moo la dugaloo ci sigaar waaw jaajëf baay baay laat mhm. waaw loolu moom am na solo la mhm. waaw comme que microbe moom maanaam dañ see judd waaw suñu wàllum yaay la judd waaw suñu wàllum yaay maanaam moom da da doon yëngu si si kër gi bi ñu dëkk tamit ñëpp ci la ñuy yëngu mhm. waaw di ëtti xaadir ëtti Cheikh Abdou Xaadir Jeylaani ñëpp di ci yëngu kon ñun dañ see judd waaw mhm. waaw déggoon euh, fan yi jàll di euh, sept vingt euh, sept septembre deux mille génne si benn single. Mhm. sargalee ko ki nga xamante ni mooy Serigne Saliou Mbacke di leer ci El Hadji Hadim Mbacke conférencier maanaam bëggoon nga xam lan moo la euh, créé son boobu noonu ba xam da nga manager boo xamante ni tey jii nii moom mooy euh, euh, xalaat dara rek ñëw wax la ko wala yow yaa toog sa jëm boobu. Mm-hmm. jékki-jékki rek xalaat ne pourquoi pas nga génneel ki nga xamante ni moom mooy single Serigne Saliou Mbacké. Mm-hmm. waaw loolu maanaam dañ ciy liggéeyal ak Serigne di si liggéeyal ak suñu ay magum taalibe ku si mel ne Ibulaay. Mm-hmm. waaw ak sama gars yi ñoom Thierno Lamine Ndiaye yëpp. sëriñ bi tam day bind di ñu jëf koy yaatal ci ñu demee ñu mel ni ay oracle waaw mbindum sëriñ beeg yooyu noonu. waaw ci loolu lañ lañ lañ moo waral ñu ñu fental ko air boobu noonu gaa yëpp caab si nag. mu sopp ko lool mu dafa bëgg ñu dëgg la déggoon euh, ñu gis ni maanaam jamono jii nii bokk nga ci ñi nga xamante ni euh, yéen a téye sikar fii ci caaro yi. Mm-hmm. ba jamono jii bari na ay jeunesse yu bëri tey jii nii déggoon tey jii nii bu xewloon benn cant. Mm-hmm. daanaka koo yëgal ak kooku yëgalul ñëpp ay bàyyeeku fu ne ñëw fekk si la. maanaam acte bu rafet googu noonu nga xamante ne waa caaro yi euh, def nañ ko. Mm-hmm. en ak yow digal di ko ngir tax maanaam acte bu rafet ko gisee. loolu loolu maanaam di teg Seexul Xadiim waaw gars yi tamit topp ñoom tamit gën maa bëgg sëriñ bi waaw ay nangu yu xeebu waaw ñoom tamit ko sëriñ bi waxee dëggal jubal leer waaw liggéey jaamu yàlla woy si ndigal comme ci loolu lañ tënk maanaam moo waral ñun ñun ñu sekk ak ñoom ñëpp jàmm ak salaam ku si woote bala nga xew la booñ ko waxee rek ñu suñu borom nag féete leen ci micro bi waaw ñu am ñu ci jiitu am ñoo xamante ne ñun ñoo leen ci jiitu. waaw am na affaire roy la ak wàmb daal barke Seexul Xadim. ñun tam ñu am ñu daan roy. waaw ba ba tey sëriñ bi dafa ñu ba xam déggul maanaam ci euh, wàllu cant rek lay dund wàllu sikru la hmm. wala maanaam da nga am beneen liggéey goo xamante ni tamit euh, ci ci ngay def. dëggal day yëngu ci wàllum cant. di yëngu ci wàllum oto waaw di liggéey si mécanicien waaw maa ngi maa ngi maa ngi waaye sama garage fii ci ginnaaw. waaw di liggéey mécanicien yor sama ay emprunté ko. waaw bu ñu wàccee nag nekkaat ci sikar si. waaw déggool tamit ku ne xam nañ tamit jamono ji caaro yu bëri na ay sikarkat lool lool lool bëri trop ay sikarkat maanaam bëggoon nañ xam tamit euh, euh, euh, na ngay conseillé sa mbokk sikarkat yi nga xamante ni yéen nekk fii si caaro yi. Hmm. mbokk sikarkat yi ñoom tamit dañ leen dañ fasaala fasaale di leen ñaanal rek. moom mhm. tamit waaw di leen xamal ne affaire bi nii la rek roy la ak romb. Mhm. waaw barke Cheikh Khadim ku si mel ne boo xoolee ku si mel ne Sidi Fall. Mhm. wala Baye Ridial. wala yeneen góor yàlla yu fi nekk bari nañ boo leen xoolee rek da bëgg leen baaxal. Mhm, dëgg la waaw. Mhm. parce que set nañ sell nañ te ñu ngi seen seen i métier. Mhm. waaw ku ci mel ne Sidi Ba kàlla la Baari Jaal moom tamit nation la. dëgg la waaw kon loolu maanaam Baye Fall du du yàqu si. waaw kon Baye Fall du yàqu si. si dëgg la waaye tamit boo boo ci kii waat bi boo boo ci waat bi nekkaat ci. waaw. man daal loolu laay seen sama gaay te ñu bokk micro micro lii dafa dafa doy waar. Mm-hmm. ak Seexul Xadim ñu si yaatal suñu raq yi di doore di si doore ñëw. Mm-hmm. ak ñi bëgg a ñëw. Mm-hmm. waaw ki ñëw bëgg ko ñu yaatal ko lépp ak Seexul Xadim jox ko waaw ñu yóbbu te yàlla tax. surtout sax si jamono jii nii caaro tamit bari na ay ndaw yoo xamante ni euh, bëgg nañ dugg ci wàllum si kuréel mais euh, bëgg nañ tey euh, bëgg nañ tamit comme ces genre yi nga xamante ni yéen a leen jiitu si si kar hmm. bëgg nañ tamit euh, ñu mel ni yéen di leen conseiller hmm. di leen wax maanaam bu ñu bëggoon dugg tey ji si kar ban yoon la ñuy jaar ak ak ak yeneen ak yeneen bëggoon nañ tamit nga wax ko ñi nga xamante ni comme comme waa yi ñëpp a ñu suivre seen seen bii di Al Moukhtar TV bi bëggoon hmm. tamit nga soññ leen ci li nga xamante ni mooy wàllum si kurlaay waaw loolu ak romb rek comme ni ma wax. Mhm. waaw tout tànk yi dañ nañuy fasaale bu baax mhm. ñoom tamit ñuy roy tamit si sunu sunu mag ñi waaw parce kenn kenn mënul. waaw suñu borom nag am na ñoo xamante ne moo leen jiital. Mhm. ñu jiituñu ñu si. comme dañ leen roy rek di sàpp tamit ay taalibe waaw dëgg dëgg taalibe waaw ñoom ci luñ nekk rek ñu nekk ci. di xool lu baax ci ñoom ñu ko ànd ak ñoom mhm. waaw ko defee rek mhm. luñ si luñ bëgg si sikar si dinañ ko am mhm. waaw tey jii dégoon la comme ku la bëggoon gis baa mu woo la pour comme genre programme ay cant pour nga ñëw cantal ko maanaam nan lay def pour ba gis ba jot la pour mën a wax la programme waaw maanaam bu fekkee ci suñu wàllu ñi ak sunu tamit numéro tamit am na ñi ñu amna am nañ groupe ci mel na maam Thierno ak Lamine Ndiaye moom mooy bàq xim waaw maam Thierno maanaam moom tamit sëriñ bi da ko boole ni moom moo yor porte parole beeg loolu lépp waaw te dañuy ànd ak tamit suñuy magum taalibe ñoom Sidi Fall ak ku si mel ne Babacar Bàcc ñoom ñëpp tamit ci wàllum daaru Marnaan ak gars yi auditeur seen ku jaatu Serigne Saliou dinañu jot jaar si maanaam maam Thierno bi ñu jot. kon la woon daal ñu ngi jot ñëw nañ ñëpp. waaw parce que kon déggoon kon euh, dañ lay bàyyi la nga bindu euh, tuuti si kuréel bu ko defee nga dëggalee ko li nga xamante ne moom mooy mbokk spectateur yi suivre fii ci Almoukhtar TV. la ilaha illallah. la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya rabbi sallallahu taala wa Sadiq dafay nangoo xalaam dëkkal lu baax ci am xelam tey rafetal yee nay xolam bu dee sikar xolam xalaam ca ñeeri xol ba day rafet lu ñaaw ci moom mu ne bi سامي بام خلا موسات تاني في غور يا داي خلام خلام سيسن ساغن سجام اتمو سلالون جي وخلا ينن خملون كول لي بار الخلام مريد بو خام تا لا بول نكو خمال lu dul xalaam ci ay dogal buy biko bati xalaam batin xalam nga koy xamee yàlla xalaam nga koy gëmee ku xalamul su gëlamee musil ma bati xalaam ku serlu doora wax du juum du dox di rëccu ak di miim ab seetlukat du sànku moom daf mooy ka jiitalul xalaam ku bëgg a maandu dem fa ndar gis góor gu tooñ gu ceen ya wër day tax mu sax ci la ko war buy bati xolam xalam siraat ak i meloom moo tee mu taa bi ci araam toroxlu ak tuuba laay diine woo ak xalaam ab jaamukat bu dee xalaam aljana dolli xaram wa dootul taayi ci mbiram ku jaamu yàlla nay xalaam yàlla saxal nu si sikar mun loo nu mbooleem lu nu war dolli nu ngëm dolli nu leer ba tax ñu saax ci ay sikar jërëjëf jërëjëfati si Ahmadou Bamba. Mhm. waaw mbokki internet yi mbokki téléspectateurs yi euh, comme ni nga ko déggandee woon rek euh, nii lañ ko doon defee saa su ne euh, chaque dimanche bu ne ñu ñëw seet yi leen benn ndaanaan tey ñu ñëw fii nii caaro yi. Mhm. fekk fii ki nga xamante ni mooy De Gaulle Zikroulah. Mhm. waaw De Gaulle comme sànq ñu la ko doon waxee rek nee nga am nga ay am nga ñoo xamante ñoo nekk sa ginnaaw. comme wàllum programme ni ku ko soxla woon ba wàllum cant. comme tey jii nii boo doon joxe ban numéro ngay joxe. pour bu ko defee gars yi suuf mën laa jël. comme maanaam ñu damay dugal 77. 77. 975. 975. 33. 33. 00. 00. 76. 76. 489. 489. 13 13. 13 13. waaw defe naa ne yooyu moom ku si woote. Mhm. waaw di nga di nga jóg. Mhm. Euh, fii la ñuy yem ak yéen ba beneen yoon rek incha allah. Mhm. Eh, di leen wax ni nag bu leen mos di fàtte di ba seen abonné ba seen cloche notification ngeen di mën di jot suñu vidéo jëf